Euh, d'abord le budget 909,9 milliards. Oui, c'est très important, comme l'a dit notre collègue qui vient de, qui vient de vous précéder. Mais c'est 975 milliards en dépenses personnelles. Là, moo tax sànq ba tey ku fi jaar rek da ngay jàmbat dëkk bi nga nekk ne amul am na école yi des na table baa yi des na dafa am abri provisoire ne yi itam des na lu koy indi mooy xaalis bi bari na lool jukki nañ bu baax ci budget bi def ko ci éducation mais dafa yem rek ci ay salaire ak cabinet ministériel loolu nag mënu ko defar man de suggérer que ñu def ay budget école parce que mënuñu def c'est c'est là bu ratez l'axe deux du PSE capital humain parce que boo jàngalewu amul njàng bu baax fajoo ba wër doo dara ci sa réew que doo am xam-xam bi wala da ngay wër a di def mun a dara pour participer ci développement sa réew man de suggéré ñu def budget école en suivant l'acte 3 de la décentralisation c'est ambitieux c'est des programmes yoo xam ne moom boo ko liiree da nga naan non ñii am na fu jëm mais da ngay gis manque de vision bi day feeñ bi nga xam ne président Macky Sall am na ko bu ngeen defoon budget école ngeen décentraliser ko ñoom ñoo gën a xam seen problème parce que sama collègue bi fi jóge léegi moom wax na ci Linguère moom xam na problème mu Linguère parce que Linguère la dëkk donc ñi nekk Linguère di jàngale ñoom ñoo gën a xam problème yi mais fexe leen ba budget yi ngeen jox leen ko budget école bi am ñoom ñu identifier seen i besoin bu ko defee ñoom li ñu bëgg a def bi ci intrant scolaire bi daf ko ci effectif bi ñu soxla ci enseignement ñu am ko bu ko defee xaalis bi dina mën a yegg si ñoom wala budget bi dina mën si ñoom moom moo tax boo demee le département de Guinguinéo waa IEF dañuy ñoom dañoo yor seen i mbuus ak seen i kaaka rek fu ne ñu dem ko ay SDF lañ maanaam amuñu amuñu amuñu amuñu jumtukaay bi nga xam ne war nañ def seen liggéey comme il se doit yëf gee ngi new depuis combien département boo xam ne depuis 2008 la woon abri provisoire 52 te y a un bon programme qui dit que dañu war a résoudre les abris provisoires bu mu toll bëgg naa nga defal ma évaluation bi monsieur le ministre manque d'effectif euh, malgré multigrade benn enseignant ci ñaari cours cours lay nekk c'est encore très difficile te ba pare ki ñu dénk budget bi le ministre risque budgétaire rapport nag moo ko épinglé def ay recommandation ne bu ko kenn dénk ci service bi nga dénk ko neuf cent neuf virgule neuf milliards mais du yàgg OFNAC nag bopp du waa Pastef bi nee nga couleur OFNAC couleur OFNAC couleur Pastef OFNAC waa Pastef ñoo ko c'était au pied du président Macky Sall mais dina protéger personne ci yoonu yokkute looloo taxoon la plupart des sénégalais gàddu seeni carte daal di koy woteel mais loolu am mu ngi jël cooncoom teg ko ci ay dossier di jël ay dossiers yoo xam ne dossier politique la bu nga xañ bu ne kenn du jàkkaarloo kenn pour def pour pour dem élection ñooñu rek ci la nekk salafis bugg naa nga wax ma élément de langage élément de langage boobu dañ ko weer salafis ba ñu en 2014 le président Ousmane Sonko di doog a door ca la safi safe woon ba yenn sénégalais ko mais maintenant les sénégalais ont compris donc maa ngi wax sénégalais maa ngi wax patriote yi ñu jublu ci parrainage bu ñu déglu kenn nañu parrainé ñu xam ne ne ñii moom jeexal nañu ku leen kenn provoqué nag ñun xeexuñu xeexaanuñu élection lañ bëgg a dem daal di leen di duma duma yi métti